te nun nag roy daf nu yomb ñun roy daf nu yomb xamuñu nooy kan wallaay kacca roy arab ba dootoo mën a dëkk ak moom mukk ma nga lay xutba a bismillah rahmaani rahim dangam nangam dangam nangam jeex na léegi kay dootul wolof arab piir la waaw bu dee ka jàng ka jàngi tubaab ba ñëwit kenn du mën a dëkk ak moom mesdames et messieurs eh. moo tax kenn du leen roy amuñu ci kersa dara seen mantiq seen mantiq moo amul kersa waaw te ñun nag ci kersa lañ bind nit ku ñuul yàllaa ko def muy doomu kersa bu génnee kersa rek yàq waaw tubaab bi du ko boole ci boppam naar bi du ko boole ci boppam mënu ci dara nit ku ñuul rek la ma da bu yeboo rek jàpp kersam te xam kersaam na muy def Bougainville.